mbokki internetu MPROD TV yi euh, Sénégal jàkkaarloo ak Côte d'Ivoire yaakaar naa dañu xaar rek arbitre sifflé sëñ bi ne ma kaay ma wax la sarax boo xamante ni bu génnee nii nii nii Sénégal dóor Côte d'Ivoire lii bokk na ci li gën a yokk tax tey ñu ñëw dékk suñuy caméra jëmm ji mooy Cheikh Sidi Mokhtar Sylla di borom xam-xam di jëmm ji yàlla baaxal muy borom baatin sëñ bi tey ñoo waxtaanee. ban kële mooy dóor Côte d'Ivoire parce que Ivoiriens yi suñu bête noire lañ mais laata loolu nañ la bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi. alhamdulilah fa qutia daabirul qawmi allazina salamu walhamdulilahi rabbil alamin waaw da nga wax ji ci lu am solo mooy lu jëm ci wàllum match bi képp ko xam da nga xam ne Ivoiriens yi nga xam ne ñoom la Sénégal war a dajal ñu mystique lañ. match bi dafa bari mystique. ndax réew mi nga xam ne Sénégal moom la war a dajal mooy. quatrième réew mi nga xam ne moo gën a mystique ci Afrique. mooy ñeenteelu réew mi gën a mystique ci Afrique gannaaw fi nga xam ne moom mooy Bénin ak fi nga xam ne moom mooy Guinée Bissau ak Sénégal gii. waaye mu am leneen loo xamante ne da cee amaat mooy am na ay jëmm yoo xam ne jëmmi waajooju yi nga xamante ne ne moo jiite équipe bu Sénégal bi nu mu tudd Aliou moom la ñu amal problème mm-hmm. di ay sénégalais dem fay ay sëriñ ngir. ñu jëfandikoo xam-xam bu ñuul pour Sénégal bañ am dam te mennum Aliou Cissé le seul moom lañ amal problème te billahi li fii laa ilaha illa huwa kaamilu alxuraan laa téye lii ma lay wax lu leer nañ ñi la kon faw Sénégal ñu jug fii may wax yow nii li def ci mag bi bëriwut waaye dana am sarax yoo xam ne danañ ko wax ci biir faaw ñu def ko ngir tojtal li nga xam ne moom mooy équipe bi. dinaa la ci laaj parce que euh, xam naa ñaar ñu nekk équipe nationale ñoo xamante ni danga leen di ñaanal ndax fekk naa leen sa kër ñuy sangatu xaawi sutura mayuñu ñu tudd seen tur mais xam nañ ne yaa leen gémbuta chaque match presque danañ fubal euh, ba mi-temps jeex ñu soog génn wala ñu fubal sax ba temps bi euh, jeex koy fubal moom la génn mais balaa boobu sëriñ bi dama gis ne baatin yàlla daf la ko defal surtout baatinu seet bala ngay ñëw ci sarax bi ban seet moo gën a leer. yàlla mii dogal daa dogal ne man seetu ma damay gis. jamono ba may seet rek laa la wax def naa ci mi ci seet miracle goo xam ne ba fii may waxee yow ni nit defu ko mooy nit daana dikk ci man ne ma sëriñ bi dama bëgg nga seetal ma ma ubbi ab biteel ay picc génn ci toog ci ay mbaggam ma jël ci benn ŋaaŋal la nga xam ne moom mooy gémmiñam génn ca dara wax ko li nga xam ne moom mooy turam ak turu yaayam ak la nga xam moom mooy ay mbiram waaye fii may waxee yow loolu dama koo weesu mboolem xeeti fandi seet yëpp man damay seet ci seetu di seet ci li nga xamante ne ne moom mooy ramlu damay seet ci carte mariage damay seet ci xilmu nujuum damay seet ci fëlëg waaye fii may waxee ak yow nii yegg naa ci damay gis nit képp mën a xam ci moom loo xamante ne dama laa waxoon ne la ab sëriñ li feeg mënta seetal nit ba pare mu tam ko ne ko xanaa ab dëmm nga mën a gut a seet man duma seetal kenn ci na di ko wax ku ñuul ka wala ku weex ka wala ku gàtt ka wala borom daraja wala nangam ak sàngam képp ko may seetal ay tur yu leer naññ laa lay tuddal te lii ma wax képp ku ci am sikk sàkka wallaahi laa fii mi maay seetal nit démb képp laa la wax toog naa nit di waxtaan ak jabaram ci wàllu taxawaay bi mu taxaw ak ñàkk am doom gi diggante ba la muy soree soree li ñuy wax irsaadul hatif saa borom yabal na ko mu yegg si ci man ma woo ko ne ko yaa ngi doon waxtaan ak sa soxna ci taxawaay bi ak nangam ak sàngam lii ak lii moom ngay def ngir mu mën a am doom damaa wax ne seet moom ñëwuma ci ku yàlla bind képp koo xam ne da cee am sikk sàkka bu dégganteeg man ba yegg si ci man fii la mbir mi di leere jéggi naa xam ko waaye damaa dem ba bind ci li nga xam ne moom mooy ay téere waaye fii ma toll nii nag bu ma neexee ma wax ni séetatuma waaye damay gis mbir mu ne sama borom dama ciy xamal loo xam ne am na ci yoo xam ne sax duma ko mën a wax publiquement waaye seet moom képp ku ci dégganteeg man maa ngi lay xamal ne la am na jëmm yoo xam ne bi ñuy dikk ci man di seetlu mbirum ñaan yàlla gëmuñu ko woon dañu doon essayé bi ñu dikkee dama leen wax ne leen bu leen ma yónnee dara téye leen seen xaalis dooma leen fa yeeku seen loxo ndeyjoor bii seen tenk lii moom la ñu foto yónnee ma ko wallaay naa fii mi ma wax leen ci seen jëmm loo xamante ne seet moom ñëwuma ci ko yàlla bind te mësuma dajanteeg jëmm joo xamante ne ne man na ci lima ci man waxuma nag ne maa ko dàq ci réew mi ndax loolu day dàqonte ak maandu waaye gëm naa ne Abou Mahsar al Falaki Abdul Fattah at mboolem borom xam-xam yooyu nga xam ne kenn rawu leen ci wàllu mun xilmu nujum ak wàllu seet buñ dellu si waatoon am na xam-xam yoo xam ne man gëm naa ne danañ ko jàng fi ci man ndax li ma yor du xam-xam bu jugee fenn mayu yàlla la ci man ci wàllum seet. tey sëñ bi euh, buñ ñee njaareem tudd xam-xam ngay borom xam-xam boo xamante ni euh, yàlla am na lum la may lu bëree bëri te ñu xam ci dara mais Cheikh Sine Mokhtar euh, Sylla xam-xamu nopp lu ci gën a gaaw fexe ba nit ki bëgg la mu sopp la loo ko sant mu def ko loo ko digal mu def ko. dafa nekk la nga xam ne da am solo nopp dafa mënul ñàkk sama borom dafa dogal ne góor ak jigéen ñoo bokk ci nekk ci kawandu bi ñoo war a ànd sama borom dafa am nu mu bindee góor am nu mu bindee jigéen mag ñi dañ daan wax ne jigéen dañ koy téye ci kër comme mi ñuy téye ak góor ci kër ba du dem ku ko defut. sa kër daal di gént ndax jigéen ñi saa borom moo leen bindee noo xam ne li nga def ci ñoom ci fukki at mhm. waaye mën naa ñëw yàq ko ci fukki minute wala mu bàyyil la ci wiris boo xam ne balaa dañ ko sonn moodu moodu yu bëree bëri ñu ngi sonn ci jigéen tàmbaleeg moom fii Sénégal di am jàng di nab nabi ba mu dem bitim réew ñu ànd ak moom ba université dacc lañ ci war a ba mu xëy man seen bopp ami kayit ak lépp wor leen wan leen gi naaw mhm. am na jigéen ñoo xam ne tamit ñoo jaar foofa ak góor mu wor leen mhm. noob nag moo xam góor moo bëgg jigéen moo xam jigéen moo bëgg góor wala ñaar ñoo xam dañoo nekk ci relation te farata lal ko lu mu ci mën a doon bu ñu dikkee ci man dégg naa sëriñ si di wax 24 heures dégg naa ñuy wax 48 heures waaye man noob maa ngi ci yor loo xamante ne ku ma koy liggéeyal du ma la laaj sa tur la laaj sa tur yaay photo yi képp laa lay laaj li ma ciy liggéey ci xam-xami banoo israel yu njëkk yi la ñu koy liggéey ci turu yàlla wi nga xam ne moom mooy mu sawiru sama borom may na ma ci loo xam ne wa rabbul kahbati jëraluma tëju buntu saa borom may na ma ci loo xamante ne ne ndax dafa bokk ci xam-xam yi nga xam ne dafa yomb ba noppi jafe dafa yomb ci bu fekkee nit ki xam na ko waaye dafa jafe ci bu fekkente ne nit ki xamut yoon wam cee jaar ñu bari dem nañ ba weddi ko jàpp ne amatut joxe ci xaalis bu dul jeex sëriñ su bari dañuy encaissé ay weexali nopp waaye duñ ca man dara dañuy dikk ci man ngir ma dimbali waat leen ci sëriñ su bëree bëri loolu yow mat nga ci seere ñu bare bëri mat nañu ci seere ndax xam-xam nit su ne am naa xam-xam dañ ko war a laaj ana ana li nga bind borom xam-xam day bind noob moom sama borom may na ma ci loo xamante ne ne muxu jëlale naa ñii ñaan lu waaye sëriñ si ci jëmi boppam nañ dikk ma dimbali leen ci ndax bari na ci ñoo xam ne ñemeetu ñoo jël weexaluk nopp ñàkk xam yoon wañ cee jaar ndax nit ki faaw nga xam tabihaam xam biddiwam xam ndax ci ndox la bokk wala ngelaw wala suuf wara sawara am na ñoo xam ne loo leen di noobal doo ko suul am ñoo xam ne ci dëkkum ndox lañ leen di noobalee am na ñoo xam ne ci kaw jaww ji lañ ko dafa bari daal kooku bu ma ci doon développé daanaka man naa cee fanaan waaye ñeewuma ci ko yàlla bind moom. gis naa ne nag cangatu wërsëg tamit yàlla am na lu mu la ci defal mooy tijji nit mu laal ko rek amu wërsëg sëñ bi ki bëgg xaalis fan ngay jaar ak moom ba defal ko xaalis. waaw xam nga mbir mu ne dañ koy wax mu leer sacrifice ci jëmmi boppam. mi nga xam ne nit ñi dañ koy dabu ji ci xam-xam bu ñuul di ko dabu ci sàngara di ko dabu ci ray bakkanu nit sama boroom moom ma ci may loo xamante ne ne yoon wu leer nañ ñi la weer wii ñu nekk alaj dégg di weeru rajab ñi ma xam xam nañu ne am na secret bu ma ci liggéey boo xam ne ci ñetti juróom-ñaari naat laa koy liggéey billaahi li fii laa ilaha du ma ko defal nit fii ñu toll ci rajab saxbaan ñu dugg ramadaan xamut ci boppam ne lépp lu daan am ci weer léegi mën na koo am ci benn bis lépp loo xamante ne daana ko am ci at léegi mën na koo am ci weer benn doomu aadama ñàkkut wërsëg nit ñi dañoo tëju ñii ñu sàññ leen ay kortu ñii ñu njabar leen ñii rab ak yàq seen miir ba mënoo ñoo am dara gone yii di jël gaal gi di jaar ci yoonu saf yi wallaahi li fi laa ilaha illa huwa buñ dikkoon ma dimbali leen ci wàllu wërsëg bari na jaam ña nga xamante ne ni ñu ngi liggéey ba sonn mënuñoo am dara mënuñoo dajale dara lillahi wa rasuli même bu ngeen yorul dara dikk leen ma jàppale leen te yàlla tax xam-xam bi mi ngi fi sama borom def na ko ba mu mat sëkk sans borom may ñu ay maam yoo xam ne dañ daan sal dimb daan folli te xam-xam yoo ñu kenn suulaale wu leen ko mi ngi fi. Sénégal na réew mu naqaree waxee la waaye lii may wax boo gisee tey émission bi ma jëlub kaamil téye ko dama bëgg li may wax alxuraan doon ci feere man Abdou Lidl laa te bëggumaa dem sa wara lépp lu ngeen dégg fii billaahi li fi laa ilaaha illaa hu ak dëgg la loolu rek laay leeral ci wàllu wërsëg waaw. ki bëgg kaaraange aaru ba tey ku ko jéemal yàqu ku ko liggéey problème fan nga mën a jaar ba aar ko. waaw loolu nit ki mën dafa doomu aadama ju ne mënta ñàkk mu samp ba dëgër mm-hmm. wàllum samp nag dama cee wax mm-hmm. waxati ci waxati ci mën naa ne dama ci wax ba doon doy doy na mm-hmm. kaaraange mënta ñàkk surtout ji jamono ji ñu toll samp nit ba mu dëgër ak fol ak folli kooku sama borom dama cee may loo xamante ne du xam-xam bu ma jàng seen sama borom moo xool ba mu neex ko mu sarax ma ko ndax it wax dëgg yàlla ba ñu waree tërbiyewu tur yàlla lañ koo tërbiyewu ba ñu waree wut ngërëmal sama borom wut ko. man man na maa wax ne du ma njabarkat du ma mankat ñaankat duma ma saltige nituk yàlla laa bëgg a doon man ci sama borom lépp li may def dama ko tënk ci alxuraan ak tur yàlla ak lu set wicc ñi nga xam ne wut nañ kaaraange ba sonn wut wërsëg ba sonn dox ci ñaan yàlla ba naagu defe ne amatut ku mën a faj seen aajo amut maa ngi leen di tàllal sama loxo di leen wax ne nañ dikk ma dimbali leen sans borom mi garanti jant bi muy fenk ak bu nawetee mu tooy xipp bu nooree mu wow kongo loolu yi bët di gis ni mu ko fi bàyyee mu des fi dara soppikuwut baati nit noonu la fi nekkee te jugu fi te dara soppikuwu ci képp ku ko weddi da ngaa dëjëwut ak nit ka maa ngi xamal nit ñi ne leen ku ci bëgg mbir jëflanteeg téeméeri nit la nga bëgg amoo ko xamal na rek am na téeméeri ñoo xam ne ku dajeeg ñoom la nga bëgg doo ko am waaye xam-xam ak baatin billaahi li fi laa ilaaha illaa ba fii may wax ak yow mi ngi fi ñi yàq métier mi nag nit ñëw ci yow ne dama laa ginnaaw yàlla yow laa yaakaar xalaatal baat bi ni mu ginnaaw yàlla aajo ji yow laa ci yaakaar mboolem wor yëpp wor yi ci gën a bon mooy war koo xam ne dalaa yaakaar ci yàlla te ñu bari ñi ngi sol mbubb yu di wax ay wax yu rëy te billaahi li si laa ilaaha illa wax xamuñu dara ci mbirum ñaan yàlla ayab alxuraan sax buñ ko tuddoon nga rus ñu bëree bëri fii may waxee yow nii téye nañ seen loxo ne mbirum ñaan yàlla moom noppi nañ ci dootuñ jëflantee kenn ndax yu bon yi nga xam ne ne ay nit a ngi tuddoo métier ma kon nag ñun ñii nga xam ne suñuy maam ci lañ nekkoon démb ak barke démb ñu dond ko di ay doomi soxna dëkk mbaakol fu ñu tudd ñu xam ñu am na loolu suñ noppee téye ci suñ làmmañ wii dañuy am responsabilité day mel ni caaxaan yooyu ñoo nekk ñoon ñun ñoo ko ànd ak ñoom moo tax maa ngi génne di xamal ni ñëpp ne leen man de ñama doon ñaanal 2006 ak cinq ak 2000 ba may soog a jógee ci daara ja ba fii may waxee yow nii ñooñu laay ñaanal kon faw ñu ñu ñu ñu gën a làqatuwaat ci li nga xam ne moom mooy alxuraan ak tur yàlla te bàyyi métier bi ñuy foowee ndax ak dëgg la goo xam ne mag ñi dañ ci daan fal démb daan ci folli Euh, tey nit ki nga xamante ni ay papier rek ko dafa bëgg a visa wala mu nekk bitim réew bëgg ay kayit dégg naa côté boobu tamit yàlla am na lu mu la may. sarax dong mbirum kayit duma ci ñaan koo gis mu jafe ko la ko tax a jafe mooy sarax képp ku ko yittewoo dikk ci man la may def mooy xool ko su ma ko xoolee ba gis tag-tag ya ca gis ne war na koo mën a am sarax ya wax mu génneel ko boppam li wa ci leexi tabaaraka wa taala aw ñaan gu ci defal kenn xanaa kay lii na. ñi lijjanti ay kayit ba sonn mu jafe leen mënuñ koo am yoonu sarax képp billahi li si laa ilaha illa huwa ci laay jaar ak ñoom te sarax ya ñoo koy génn ñoo koy defal seen bopp. Euh, bi euh, nit ki nga xamante ni mi ngi dundu di dundu jafe-jafe yoo xamante ni jafe-jafe yu tar la rawatina jaaykat yi ndax bayre jaay am na loo ciy liggéey. waaw bayre duma ko liggéey bayre moom wax dëgg yàlla du ko liggéey man naa ko nag waaye duma ko liggéey ndax daa bari ñu ma ko defal fii ci réew mi affaire leen balaa ma leen koy liggéeyal ñu wax ne bëgg nañ ma defal leen ko àddina dégg leen seen carrière ëpp juróom benn weer ñu faatu am na ci waykat bu yiw boo xamee ci at année deux mille nangam yii la la génn àddina moo tax Bayre moom diglootuma ci kenn maa ci jël samay engagement ne du ma ko liggéey moom bokkut ci li nga xam ne dama ko. kii jaay nag bëgg a jaral. jaay te bëgg a am na loo xamante ne ne njarta la tudd mag ñi daan ko wax jaay ma jaay ma loolu yi ci kàttanu yàlla incha allahu tabaraka wa taala képp ku ko bëgg te déggoog ñun. la man mag ña daan liggéeye moom lañ koy liggéey duñ ci sonal kenn liñ koy defaree ñëpp mën nañ koo am ñëpp mën nañ koo am fako ko mag euh, bàyyi woon foofa rek lañ ko bàyyi ba tey waaw incha allah. Euh, sëñ bi euh, sarax bi war a gagné Côte d'Ivoire ban la. sarax boobu nag xam naa ala kulli xaal maa ngi waxtaan ak ay kilifa ñu ngi ciy déggoo da ci am loo xam ne duñ ko mën a leeral fii. mais lu tax loolu. marché bi xam li ci des yàggatu. maanaam li am damay wax ne baatin ak butit mm-hmm. ak loolu yi di nekk ci biir tuba yi góor ñi mm-hmm. ñoo yem amu ci lenn loo xam ne caaxaan a koy génn fa mu nekk sama boroom ay mbóotam ak i sekkanam joxu ko jëmm joo xamante ne ne day toog di ko waxtaane man xam naa ay mbir yoo xamante ne ne dara jëralu ma ma toog di ko wax mm-hmm. gis nga yàlla ku ko weer mu weer la ku ko nattu mu nattu la ku ko weddi demal ci alxuraan yonent yàlla ibrahima ba mu waxee arini kayfa tuhil mawta mu ne ko awalam tuumin mu ne balaa walakin leen may na xal bi sama borom nattu na ko de yonent yàlla sakariya ba mu may ko dinaa la may doom mu ne ko naka nga may maye doom ak fi ma toll nii ci ay at naagu ko sama borom may na ko de waaye nattu na ko gaay yàlla yi amub cër ci xam nañ ne yàlla ku nattu mu nattu la waaye ala kulli haal loolu a déggantil ña ngi cey ñañ ca war a wax ak ñoom ñi ngi wax ak ñoom waaye maa ngi lay xamal ne la am ma dëkk boo xamante ne ma nga ca Ginne jalaa ba gën a mag fa la nekk dama lay wax dëgg te yàlla sax ba ma fa géjee yeggut ndax dama fa am ay wëllëre am fay boroomi xam-xam yu may demlantee ka dikkalanteel turandoo sax am naa ko fa xam naa ci suyéeri senegal gi ku ku ku ku siiw ku ñu tudd turam koo xam ne bi li fi laa ilaaha aw turam yóbbu nañ ko ca jalaa boobee aw yóbbu nañu ko ca jalaa boobee foofu nag foofu nag laa ci yem li ci def suñ ko suñ ko waree leeral danañ génnaat leeral ko ci kat. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi lay suivre li may tàggatoo nit ñi mooy wax leen ne maa ngi tàllal sama loxo ñëpp saa borom li mu def ci man muy ay yëfi boppam di ay mbiri boppam Sénégal ñoo ko moom réew mi ñoo ko moom addina ñoo ko moom. njëkkante laa ngi njëkkante laa ngi su ma yëgoon gaaw mhm. man dey duma maaman mhm. doomam saltige wóote wu ma dara ci sama bopp mhm. sama borom moo ma defal ci biir alxuraan ak turu yàlla loo xamante ne ne maa ngi ko ci sant di ko ci gërëm nituk yàlla dëgg day dem ba yegg ci man a jàng alxuraan ba yegg ab aaya na ko taxawal mu taxaw mu ne ko mën mii boo ma bindee nangami yoon boole maa ngi nangam ak nangam nangam lay faj loolu yi mooy xam-xam yamxullaahu maa yashaa wa yusabbit lool nag lu ñuy tër bi yow la ba yegg ca maa ngi tallal loxo jaam ñi di leen wax na nañ gën a làqatu ci kaaraange nañ gën a làqatu ci tur yàlla nañ gën a wut li nga xamante ne ne moom mooy ndëgër laay ba dëgër incha allahu wa taala ayco sëñ Sidi Mokhtar Sylla gis ngeen waxtaan wu am solo mu waxtaan tey mu nekk waxtaan wu am njëriñ ñu doon ko séq ak moom doon yaatal eh, bi suñu match bi nga xamante ni tey moom la ñu am muy match de choc eh, gis ngeen lim ci wax mi ngi ciy waxtaan ak ay kilifa te solution incha allah dina am kon mbokk yi nañu rafet njort te xam ne bonne nouvelle ayco numéro yaa nga noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk ñu doon topp duñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad ya Rasulullah